yéen lu ko gën a bëgg wan ngeen ni doom ji lu ngeen ci def xem lépp lu ngeen ñàkk ci bis bi yal na leen ko yàlla ràmb ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal ko yàlla boole ak jullit yëpp sunu goro bu baax bu baax kàlla damay wax ni premier njëkke na yegg si premier njëkke na yegg si Yacine Ndiaye ji toog <coughs> nee yàlla daa dogal sa doom ak doomam ñu bokk benn baay mbay seen bu leen te bi jure jur leen fi leen war a jure ngeen bokk menn maam nag yaag Yaasin Njaay mii ndax ku la way way Yaasin Njaay ku way Yaasin Njaay way la yàlla sa doom ñoo nekk ak Yaasin Njaay yow xooloo jeexoo defoo dara xanaa bàyyi koog sa doom rek xam ne doom yi ñoom ñaar moo leen bokk jur Adja Ndiaye nag sa doom moo ko tànn njëkkal boppam ndax bi mu toogee baayam baayam naan ko kan mooy doom war a doon sa njëkke baayam a daan wutal ñëpp njëkke wande moom daa ko man Adja Ndiaye mii moom laa féetewoo waaw man Adja Ndiaye laa féetewoo baayam daan tànn ku mu baay ca kër ga mu ne ko diwa lay jabar wante Omar ba muy takk jabar moo ne papaam Adja Ndiaye de moo may wàcceel jabar yàlla dogal <coughs> ko yàlla dogal. waaw ba yàlla weeteet. ba mu ñëwaatee damu ne Adja Ndiaye moo may takkalaat jabar. Adja Ndiaye nee na moom daa yaakaar ne moom Amara bokk ndey boo baay ñoo bokk ndey ak sax waaw dañoo bokk ndey ak ñoo ba ba ñoo bokk ndey ak waaw ndax man fu ma toog dama leen ne Amar mooy sama taawu néeg. ndax Omar Ndiaye laa jëkk a yor ci doom. Mhm. ama may am doom dañoo yëkkatu Omar Ndiaye jox ma ma yor ko. dégg nga loolu Faly Gueye mosuma cee wax dara mosuma cee xool benn bët. mosuma dégg ci yow benn baat bu ñaaw boo ma yóbbante baa boo ma wax. lu rafet ci yàlla rek laa xam ci yow munuma laa waxal dara. ak lu wax ko rafet. kon nag loo bëgg sa njaboot gii yàlla la ko yàlla ak sëñ Babacar Sy may. amin amin Omar Ndiaye yàlla na ko yàlla yëkkati ca kaw. amiin ci dara gi yonent bu tedd bi lu ma ko yéene. yàlla na ko bokk ak Mansour Ndiaye ñoom. amiin sama njaboot. lépp loo xam ne yéene naa ko rek yàlla na ko bokk sama doom yi. amiin cër bi nag luñ ci deful rek xam ne dañ koo amul wante yéene na lu ko yéene na Adja yéene na Amar ba ko yéene naa ko man mi ko jur lu ko waaw ndax Omar ñu bëggal boppam yaa ñu bëggal boppam bàyyi ma ñu bëggal boppam ndax kër ga kat doom ju fa juddoo ñii ma àndal ñu samay wujjee kii yàlla boole na yàllaa ñu boole yàlla danoo boole boole ñu bokk benn ñu bokk benn avion dem bay laa xaram loolu yàlla boole nañu suñ dara du tàggoo nun ñaar suñu jëm ñooy ànd ñu mel ne ñaari seet bokk ndey ak bàyyi këram xamu ci dara keneen ka fa nekk këram xamu ci dara ay doomam xamu ci dara muy góor muy jigéen su ma ñëwee dañ yaay taawu mbay sëy bu kër gaa ngoog loo doxal baax kon man mënu ma a fay dama leen di ñaanal yàlla ñoog i njaboot yal na yàlla guddal seen i fan yal na yàlla barkeel seen njaboot lu ñu am ci kër ga yal na fa yàlla waasee barkeel seen bàyyi yal na ko fa yàlla mu am fan guddoo gudd ba sut baraama dumbe daam ak monsieur la jaleef jaan aw fan ak baaka soxna gaa yi fan ak deet baab soxna gaa yi fan yàlla na leen sutu fan ah, fu mu bëgg a yegg leen damaa damaa dugg. damaa ñor ndax Ngoone Njaay. man maa Omar Ba. nee na mu tubaarkaala moom moo yor Omar Ba. Ba la man ci la ba jóge fi ñëw ci yaayam. nee tubaarkaala Omar Ba ci moom la Ngoone Njaay du tëdd mukk sa woo ma yaay. Ngoone moom Ngoone Njaay boole na leen. nee tubaarkaala nag mu yor puso nag dañoo famille bi. amul kenn koo xam ne bokk naa Ngoone Njaay baay. nee naa amul kenn amul kenn koo du koy woo la téléphone nee na nga def wala tante séeri na nga def. nee na kenn ku ne daal su yeewoo fonk nu loo teg nu ca kaw. na fonk ma ne teg man de Dakar nga ma dëkk sax dama fa dem xew. nee na sama kër doom li muy jege jege. du ma fa dem. nee du fa dem. wante Ngone Ndiaye ma jaral jógee ba ñëw. ak suñu waa kër ñëpp nag suñu famille yëpp dëgg ñëpp ndax yëpp yem ak Ngoné Ndiaye Ngoné Ndiaye ci boppam moo baax moo amub yar moo am teggin lépp loo xam ne bëgg na ko ñun atum njaayeen lépp loo xam ne bëgg na ko fi ci atum njaayeen yàlla na ko fa yàlla jox nee lépp loo doon ci atum njaayeen nee na lépp lu moom ci atum njaayeen yàlla na ko yàlla sa li ma wax mbay seena bu nga xam ne mooy jur Omar Ba nee mbay mi nga xam ne loolu la wax joxe otoom nee na joxe otoom ne waa këram bu fi kenn des na Ngoone Njaay Ngoone Njaay jaral na ma ko ndax goro bu ma ko jaral la bu ma bëgg la bu ma la nee na goro bu ma bëgg la bu ma ba loolu passé nee bi loolu jabari jàmbur kenn du ko gërëmal jàmm na kenn du ko gërëmal wante Omar ba moo ma woo ci gémmiñam nee na Omar moo ko woo ne may yaay ni ma yaay ba mbokki Ngoone Njaay toogee mbokki Ngoone na nga leen ma xamal ne Ngoone Njaay nee na na nga xam ne Ngoné mii nag ku baax la. Ngoné Ndiaye ku yaru la. Ngoné ku yaru la. Ngoné Ndiaye ku sama famille la. ku bëgg la mu ko dumala naag li ma defal man Omar Bass faa liggéey sama yaay ji ma jur. nee na li mu li mu defal faa liggéey yaayam mu téye mu ko na moo tax nag mu téye